aousubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmani rahim allahuma salli ala seydina mouhammad nabil umiyi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wasallama tasliman in wala yàlla salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu téléspectateurs yi suivre émission bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro ci biir seen flash point com ñoomaat mbégte gu yaatu seet siwaat suñu njaatige suñu xarit macha allah rabi waaye naa leen kenn koo xam dootuñu ko présenté kenn ndax ku ne yàgg na maa dégg ak moom ci sëriñu Sadio Mané muy sëriñ Cissé Mandeng nekk fii ci Parcelles Assainies Serigne Cissé ñu ngi lay nuyu di la ziaraat ci biir sa émission bi nga xamante ni wax dëgg yàlla caméra miin na la kër gi miin na la waaye internet yi nga xam ne ñooy seetaan seen flash tamit miin nañ la. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Mm-hmm. Uh, allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Uh, maa ngi leen di fay di nuyu njaboot yëpp di nuy senegal yëpp. di mm-hmm. nuy samay mbokk yëpp. Mm-hmm. Uh, mbokk jullit ñi mbokk. E, diine ɓe ñëpp daal mhm. ak samay mbokk soose e mbaadi mbandinkol e, mbal ɓe compte na albaadi ma sise abal compte na waatu waatindi mhm. awe duwa kelale fanna bela min mu naal solatala waatu waati asa duwa kaali fan fan mbaake aɓe baaɗingol ɓe compte na min ke dakka bo sénégal kata gambia kata casamance kata ñombato guinée bissau eh, bantala banko aɓe ɓe mbaɗigo ɓe contono inchallah mi mhm. yalon ko aɓe duwa keydade fan fan kono numa ko wahe magi nuy mbokk eh, taalib yëpp ak ñëpp ñu may ñaanal daal allah te ñu may sant mani ma leen di sant bu baax a baax mhm. te ñu jàppante kóllëre képp ku am ay soxla daal di jokkoo man daal inchallah rabbi mhm. macha allah sëñ Cissé man dénk waaye naa leen sëriñub Sadio Mané foofu laay tàmbalee ndax gannaaw eh, Mhm, waaw waaw yàlla dogal na may na ko ndam lu rëy lim ko may. waaw kooku yàgg naa la ko macha allah <laughs> kooku ku nekk daal euh, fu mu nekk euh, ñu ngi koy dolli ay ñaanu baax a baax te euh, wax naa la ko am naa ci yaakaar ci moom baax a baax ci kanam lay jëm incha allah. Mhm. képp kuy mandeng képp kuy soose ñëpp muy sénégalais bëgg ko daal ñu ngi koy ñaanal baax ba incha allah comme eh, ni ma la ko waxee daal ballon d'or ni ñu koy waxee daal bu soobee suñu borom waxoon naa la bu yàgg naa dina ko jël te dina ko jëlaat bu soobee ci kattan yàlla incha allah moo tax ñu ngi ñaanal ñëpp daal ñëpp ñuy nekk ci wàllu sport di ñaanal baax ba allah rabbi ñu gis ni sport buñ ko waxee làmb am na football am na eh, eh, bëri na pàccu tàggat yaram yoo xam ne siiw nañ te may ñu ngi may lu bëri mais particulièrement dafa mel ni euh, xanaa Sadio Mané mi nga xam ne yaa ngi ko ñaan moo tax nga gën a consacré wu ci football parce que fii dañ fi def émission ma wax la Sadio Mané nga ne ma Sadio Mané ma ne ah, nga ne ma nga ah, dina ñëw parce que ñu ngi koy ñaanal te xaaruñu ku ñëw ci ñun te boolewuñ ci suñu wax ju bëri mais xëy na bëgg la ak yéene guñ ko yéene ak li mu doon xëy na sa mbokk mm-hmm. est-ce que loolu moo tax nga gën a favoriser wàllu football bi wala euh, waaw du loolu rek. Ah, parce que newagoo ma kii mooy sama mbër wala kii mbër mi maa ngi koy ñaanal tamit te laaj naa la ko fi tamit. waaw dëgg am na yoo xamante ne. Mhm. dinaa koy liggéey mais ci wàllu secret lay doon. Mhm. Euh, bëri na ñi nga xam ne dama lay ñaanal ci fànn googu même budul moom ko si ñeneen dañuy wàllu euh, bëre. Mhm. Euh, wàllu yeneen sport dinaa ci def ñaan mais am na yoo xam ne toujours daal. Ah, nga boo nee ñu naan siru rek wàllu secret moo tax am na yoo xam ne da ngay jëflante ak ñoom ci wàllu ñaan ci wàllu bëre. ak yeneen ak yeneen mais doo ko mën a wax daal mais maa ngi ciy yëngatu baax ci wàllu bu rek euh, yeneen yeneen yaram daal incha allah mm-hmm. dinaa ci def yu am solo daal incha allah ñi nga xam dañu may soxla ci fànn googu daal mm-hmm. dinaa ci def ñaan am solo incha allah rabbi macha allah mm-hmm. léegi est-ce que secret boobu nga yor foofu noonu ci wàllu sport bi moom nga yor ci ñi nga xamante ni dañuy ut faral di ut ay kayit wala ñuy xëccoo ay place ak yooyu waaw comme ni nga ko waxee secret boobu yëpp daal Euh, am na yoo xam ne yu bëree bëri ci wàllu alxuraan laa ko jëlee muy siru yooyu mhm. euh, ci wàllu xaatim naa ko ci jëlee wàllu yenn am na yoo xam ne wàllu sunguf mhm. ci laa koy jëfandikoo incha allah comme ni ma ko jàngalee samay maam mhm. euh, ak samay woyjur daal incha allah même ci wàllu yaram muy wërgu yaram tam dinaa ci def ñaan yu am solo yoo xam ne daal bu dee sa yaram daal dafa am yëngu yoo xam ne mun nga dem nga hôpital fu ne gisuñ ci dara wala xamuñ dara kooku moo ko xoolee listixaar ko xam nu ci nekk dinaa ci def ñaan tamit incha allah euh, même ci wàllu faru rab tamit am na ñoo xam ne dañuy soxla ci wàllu euh, mun a pour mun am euh, borom kër mm-hmm. mais bu ñu yoree faru rab to dinaa ci def ñaan daal moo ko xoolee pare def ci ñaan incha allah ci wàllu borom kër mm-hmm. ak ñi nga xam ne dañ nekk seen i borom kër toujours daal nekk jafe-jafe du bi waaw mm-hmm. seen diggante daal jafe-jafe duñ mun a déggoo loolu moo ko xoolee fekkee ne rab moo ko def wala liggéey moo ko def nit dina ñëw dugg seen diggante yàq liggéey mu yëngal sa sëy Euh, mais loolu fekkee ne xool naa ko ma xam ne loolu la lii la rek incha allah ci kattan yàlla dinaa ci def ñaan am na góor yoo xam ne dinañ ci ko yor tamit ci wàllu seen wàllu euh, rab tamit wàllu rab dañ hmm. def loo xam da ngay eh, takk soxna boo takkee du yàgg hmm. benn at walla juróom-ñaari weer mu yàqu eh, am lu ci dugg mais loolu yëpp am na ñu may soxla ci fànn googu dinaa ci def ñaan kat ci kattanu alxuraan laa ko jëlee incha allah. Mhm. yàlla mooy ma ci ndam daal. macha allah incha allah. am na solo lool fi ne da nga maa da nga maa waaxu sax dugg ci question rab rab rab yeeg yooyu mais boobu tam bëggoon na li ma ci bëggoon laaj sax mooy euh, gannaaw yow daf ci bëri loo xamante ni yaa ngi ko ciy faj est-ce que léegi rab moom mënees na koo tàqaleeg doomu aadama bi wala déet. waaw rab mën nañ ko tàqaleeg doomu aadama. loolu mun na nekk waa mun na nekk am na rab yu bon yoo xamante ne kooku moom man ne bu ma jëflanteeg moom tam mun naa ko taqale doomi aadama mais dafa am yoo xamante ne tamit ma xoolee lii mënu ma dara mm-hmm. am na xam ne munoo munoo ci lenn lenn lenn am na yoo xam ne bu fekkee ne mënu ma ci dara moom kooku dama la wax munu mënu ma ci mm-hmm. ci koo xam ne mun na ci dara mm-hmm. euh, am na rab yoo xam dafay sonal nit trop trop moom dafay sonal nit te da yàqal même sa liggéeykaay mun na la yàqal Euh, sa liggéeykaay wala sa wàllu sëy mun na la ko yàqal mm-hmm. euh, même aussi am na yoo xam ne dañuy bëgg a tukki sax seen wàllu kayit am ay jafe-jafe yu bëree bëri rab dina koy def mais nag aussi wa <laughs> wàllu wërsëg tamit am na yoo xam ne seen wërsëg toujours dafay am blocage mm-hmm. euh, mun nañu dugal ay kayit fu ne mais tous daal euh, te di ñu am xam-xam bi mais duñ leen mun a tontu tontu bu euh, rafet ci ñoom. Mhm. mais loolu lépp ci kattanu si borom daal dina ci def ñaan yu am solo incha allah rabi. incha mhm. parce que rab moom dafa sonal gars yi fi mu ne mu ne rab wax fi ne. ah dafa coro bi wala sama faru rab bi dafa bëri trop parce que jamono gi jigéen ñu du duñu muuru te aussi waxtu bi tamit am na waxtu yoo xamante ne mooy léeg-léeg ne nekk waxtu timis. léegi nit ñi waxtu bu ne la ñuy jóg. Mhm. te léegi nit ñi jigéen ñi tamit am na yoo xam ne seen colin yi Euh, dafay tax rab dugg dugg leen loolu hmm. dafay am ak seen wax ji wax ji di kawe toujours am na hmm. waxtu yoo xamante ne sa wax warul kawe yenn kawe yi waaw loolu rab bu ko déggee rek mun na ñëw jaar foofu nekk ngelaw dugg la loolu yëpp hmm. mun na nekk waaw incha allah moo tax rab daal dafa bëri eh, jamono yi daal incha allah mais loolu daal bu fekkee ne yor nga ko daal nga ñaanlu suñu borom dimbale ci daal incha allah incha allah rabbi yàlla bëri na sa tool yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp malaaka yi ameen ji yàlla na fi jaar su ko defee rek bokk na ci tam li nga xamante ne mooy wàllu wax dëgg yàlla hémorroïde Cissé sëriñ yëpp nee nañ dañuy fay hémorroïde dañ koy faj mais Cissé ñi ci am résultat dañ leen di wàññi <laughs> waaw wax nga dëgg wax nga dëgg hémorroïde yi bëri na parce que ci lekk nii la lekk ni façon lekk ni yee bëri fu mu toll nii euh, bu boobaa mun na la andil hémorroïde Euh, loolu lépp euh, mais daal yow mi gis nga ne man lu ma ciy faj daal incha allah ci kattanu yàlla mm-hmm. am na ay mbir yu sunguf yoo xamante ne wal boole ko koolu saafa dinaa koy liggéey daal bu yàlla may ma ci ndam daal incha allah mm-hmm. euh, ñeneen ah, ah xam nga ku nekk daal sa liggéey la xam mm-hmm. moom sama liggéey la xam te yow mi xam nga sama liggéey te yàgg nga ma yàgg nga maa xam Mm-hmm. xam nga sama liggéey moo xam sama liggéey bu nekk moo ci xamee dara naax wax xaw man xam naa ci mm-hmm. dara moo ci mm-hmm. xamul dara mënu ma ci dara dinaa wax lii moom mënu ma ci dara loolu moom euh, kenn mënu ma def looloo xamante ne mun naa ko mënu ma ko tamit waaw loolu moom euh, ci kattan yaa man moo dëgër lay wax nit ki waa incha allah am na solo xamoon naa ci yow ku bëgg a bàyyi tox am na loo ko daan jox rek mu bàyyi tox dama xamul ndax mi ngi fi ba tey ndax am na koo xam ne moom dama laaj fi ndax xam naa ni daa moom waaw waaw mi ngi fi boo léegi de allah ci kattanu yàlla walu toxo dinaa ci def ñaan boo yàlla déddale ak moom daal mhm. moo waral ma lay wax naa déddale moom dinaa koy liggéey mhm. mais ci fànn gi moy mhm. lu bon nga jublu ci lu bon loo xam ne euh, baaxul ci yow wala ci naanum sàngara am na xale yoo xamante ne seen dañuy jublu ci wàllu naan sangara wala tux mhm. lu bon mhm. li leneen mais loolu yëpp daal nañ ci ñaanlu boo dëddale ak moom kooku yow mi xam nga ci fànn kooku yoo xam dinaa ci liggéey daal mhm. boo yàlla ndax xamoon naa sawlal moom tu xale yi tourne wala mag ñi gis na xam naa ni moom loo looy saafara la moom voilà mooy saafara bu baax ba incha allah yi nga xam ne dañuy tuur uh, ndox ci kaw laal daal incha allah uh, kooku dinaa ci def saafara bu baax ba incha allah xale yi nga xam ne ci wàllu examen dañuy nekk ci wàllu examen di <coughs> seen uh, wallu concours daal dinaa ci def ñaan wala kiis boo xamante ne pour lu xel eh, sa sa xale bu fekkee ne xelam toujours dafay jaxasoo mm-hmm. wala eh, xelam naqadi kooku dinaa ci def ay kiis pour lu daal ci wàllu xale daal incha allah lépp daal mm-hmm. macha allah mais du man lép yàlla la daal incha allah macha allah incha allah am na solo lool Serigne Cissé nee na Serigne maane Mané man Mandeng mi ngi noonu sama xarit boobu noonu euh, wàllu kaaraange ma bëgg ñu dikkaat ci tuuti parce que man mooy li may rek ni ñi fi mu ne ku ci ne da nga war a am jàmm ku ci ne da war a mucc te nit defe naa ne war na waajal boppam ba mën a aar boppam. aar ak njabootam. Mm-hmm. kaaraange nag buñ ko waxee man bu ma koy wax waxuma ko ci ci fa benn fànnin rek mooy nu ma aaree sama bopp. Mm-hmm. mais man kaaraange boo xam ne lu may aar aar sama njaboot. bu ma nee aar samay xarit sax mu aaraale leen. mais xam naa ni aarandoo ñëpp mënta ne. Mm-hmm. mais au moins sa kër yow ak sa njaboot. waaw kaaraange boo xam ne bokk aar lu am am solo la comme ni nga ko waxee jamono gi nit ki da nga war a uh, aar sa bopp aar sa njaboot hmm. jamono gi dafa jax soo trop moom mais na ñaanu daal luy aar sa bopp ak say njaboot mais loolu dinaa ci def ñaani am solo wala sa dëkkuwaay wala sa wala sa waruwaay muy sa oto hmm. uh, wala nga jënd sa kër sa kër bu sa kër daal bu koo aar daal wala xool ko bu fekkee ne am na loo xam ne nekk na fa nga ñaan ci daal incha allah kooku dinaa ci def ñaan yu am solo incha allah rabi ci wàllu kaaraange daal mhm. mais ki doo ko def dara mais nag euh, doo nekk def ki doo ma nekk def ki dara mais nag na nga aar sa bopp boo mhm. xamante ne keneen mhm. noonu bu ñëwee ci yow du la mënal dara kooku moom ci kattan yàlla am na yoo xam ne boo ko moo ko liggéeyee ndomb boo xam ne moo la ko liggéey wala kooku moom képp ku jël xalima euh, naan daay jël sa tur daal incha allah dafa lu bon moom kooku ci boppam lay dellu daal ci kattanu yàlla incha allah mm-hmm. te dina aaraale njaboot gi waaw te dina aaraale njaboot daal wala nga jubal bugg a jubale say njaboot mm-hmm. doon benn waaw parce que léegi dañoo jafe-jafe dafa am mm-hmm. ci wàllu njaboot yoo xam ne du mën a déggoo surtout waaw mais loolu am na kii booy loo xamante ne daal dinaa ko liggéey boo xam ne sa wàllu soxna ak sa wàllu daal ñëpp mën a nekk benn kër gi daal moom fi ne ñëpp ci jàmm la ñuy nekk waaw loolu am solo xam nga suñu mbokk yi nga xam ne tukki wala ñuy faral di tukki lu bëri ku ci dem rek fi mu ne lay fees sa bopp mooy njaboot gi nga bàyyi ginnaaw njaboot bi nga bàyyi ci donc loolu tam dafa doon loo xam ne lu am solo la ñëw fu jóge fa li seen biir jaxase seen i yi daal mhm. mais loolu def ci kaaraange woo xamante ne ñoom ñekk daal seen xel nekk benn daal incha allah mhm. waaw kooku am na ma ciy liggéey daal incha allah mhm. waaw kooku lu ma koy liggéey ci boo ko doon defee saafara ci rees nga koy def say njaboot yi lekk daal bu soobee ci kattan yàlla ci fois waaw bu say njaboot de luñ ko lekkee rek ci kàttan yaa ñoom dinañ doon benn incha allah. loolu moom tubarkalla loolu moom am na solo fi mu toll. macha allah macha allah rabbi mais sëñ Cissé léegi fi mu toll boo xoolee mboolem bi ngay wax dégg nañ la fi ne alxuraan ak sunguf moom bëriwaat na ci loo xam ne ci ngay yëngu mooy wàllu xaatim yi ngay jukki ci alxuraan di ko wala ci ci ci ci ci tegtalu mag ñi di ko utiliser mais est-ce que sëñ Cissé ci alxuraan ak sunguf kese la yam. waaw waaw man de alxuraan. Euh, ci laay yëngatu ak wàllu sunguf daal wàllu wàllu reen léeg daal waa mm-hmm. dina mu ci laay yëngatu mais loo xamante ne daganul moom mm-hmm. kooku moom duma ko laal même fekkente ne mun nga ma jël lu dul jaay dama naa naa loolu moom duma ko laal loo xam ne daganul moom mm-hmm. euh, ci suñu diine loolu duma ko jege daal incha allah rabbi mais lépp lu dagan daal si suñu diine jëm ci wàllu alxuraan muy wàllu faj wàllu ñaan yoo xamante ne dala musal daal wala yóbbu say mbir ci kanam loolee macha allah dina jëriñ ñaan yu am am solo daal incha allah bu yàlla dimbali ci incha allah. ma allah tey jii boo xoolee fii jamono toll rëng-rëng ji bëri ji dëkk bi metti na ku nekk a ngi jàmbat tey jii ban secret la sëñ Cissé mën a mën a mën a yor boo xamante ni dina tax euh, bokk ku ñëw ku mu giseel wala ku ku ñëw ci moom di nga mën a mos di nga mën a mucc. parce que ñaar yi ku ko def ku mucc ku ne yor loo mos rek fi mu ne daanaka jàmm am nga jàmm. Mm-hmm. waaw waaw. Euh, nit ki moom man de toujours lu ma wax nit ñi daal léegi da ngay gis koo xamante dafay dafay ñëw ci man pour ñaan lu mais daanaka naa da am alal ci saa mhm. dama naan loolu moom mu da ngay dem liggéey ñaan ci borom. yàlla dimbalee sa xol ma aussi na set mhm. euh, xol mu set daal boo ko defee après nga dëggal say waajur mhm. loolu ci kattanu yàlla daal li mu la defal ñaan daal kooku moo duma ci am ñaari xel su borom dina la ci dimbale incha allah moo daal damay ñaan ñëpp daal nañ am xol mu rafet mhm. yoo xam ne nañ doon benn li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom loolu boo ko defee daal ci kattanu yàlla daal suñu borom dina dimbale incha allah te nga gëm si liggéey euh, liggéey bu sell daal moo gën incha allah euh, xam nga alal nii am alal ni Euh, yomb na te dagan bu mhm. daganul mais na am al na am alal te mu sell mhm. moom mooy lépp daal incha allah moo tax man sama lépp daal na na sell mhm. moom lay euh, conseil ñu bëri bëri daal incha allah na tege daal ci yoonu siraatul mustaqim siraatul mustaqim képp ku may jëflanteel daal incha allah euh, ci loolaa lay conseil incha allah dinaa lay lissaaral fekkee ne lissaar boo xamante ne gis naa say mbir même wala tukki am na yoo xam ne dañu bëgg a tukki sax. Euh, mais bu ma saa wa dana ah, fekkee ne gis naa ne tukki bi baaxul ci yow naa la wax lii baaxul ci yow mais fekkee ne baax na ci yow te moo ko lissaare ne baax na ci yow naa la waaw ah, mun nga euh, mun nañ ñaan dem daal incha allah mais fekkee ne aussi sa wërsëg nekkul fële war nga fi war nga fi mun toog daal fekkee ne sa wërsëg fii la nekk daal. mais loolu yëpp daal nañ euh, sellal xol yi daal bu a baax incha allah. di ñaan yàlla di sellal ñaan yi daal incha allah lu am am solo la daal. macha allah. loolu moom defe naa ni kon duñ teg dara lu dul xanaa laaj la kàddu gu mujj gi rek ci ci ci ci jotaay bi. waaw waaw kaddugu mujj gi de maa ngi gërëm ñëpp daal incha allah ñëpp ñu may <coughs> ñaanal daal euh, ñu may soxla ci ci ci fànnu ñaan daal ma leen di ñaanal daal di yàlla di faj seen i aajo. Mm-hmm. may wax naan du man suñu borom mooy faj aajo bi. Mm-hmm. Euh, léeg-léeg nit dinañ euh, dama wax naan ñaari fan wala ñetti fan ma ne la man duma nit yooyu ñu lay wax naan benn fan wala ñaari fan déedéet. ci yàlla lay ñaan mhm. waaw yàlla euh, doomi aadama moom mun na nekk benn fan mun na nekk ñaari fan euh, te mun na la fànqal leneen mhm. mais nag wax ni kenn ñaari fan wax lu du dégg kooku moom du man du ma koy def euh, mais nag lépp daal ci kaw yàlla laa koy ñaan incha allah mhm. te bu nangoo dama wax yàlla la incha allah rabbi bëri na ñi nga xamante ne tamit ci wàllu seen yaram bopp yu métti daf leen di far di sonal kooku naa ci dafay ñaan yu am solo daal bu yàlla dimbali incha allah wàllu mocc bopp daal waaw mocc bopp waaw mocc bopp wala ci wàllu commerce am na yoo xam ne ci wàllu njënd ak jaay mhm. dañ may soxla ci fànn googu ci wàllu njaay daal mhm. pour yàlla dimbale dimbale leen uh, daal incha allah dinaa ci ñaan am solo incha allah mhm. moo ta may gërëm ñëpp daal incha allah képp ku ma soxla daal sama numéro mooy 77 048 10 93 ma nuyoog mbokk soosee mbaani mbaani kol mbaal bee kontoon na baake baake fanfan mbaal kontoon na mbaal jayi la fanfan uh, naal san na numéro taa mi mu 77 048 10 93 77 048 10 93 whatsapp o baala mais ɓen kumadi inchallah eɓen sottora ɓe mbaɗen ɓe min ka ko sénégal ñom mbato a ɓe ɓe mbaɗigol ɓe contonna albaɗima albala mo sisete ala barka assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah sérine man denk ci waxtaan wi am solo woowu nga xamante ni machallah jagleelaat nga ko askanu Sénégal waaye jagleel ko tam suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo ñooy internet yi ñi nga xam ne saa su ne ngi ñuy topp ci YouTube bi ci internet bi ci biir senflash.com seen émission xam sa démb moo dikkaat nii àndoon ci ak Serigne Cissé dootuñu waxee rek xanaa ko ñaanal yàlla sama borom dolli ko a guddalu fanam gën a wéral ay cëram ba am na ko ci askan wi itam sama borom jàppandal lépp ci tënk macha allah yàlla jàppandal mbir yëpp noonu waaye itam suñu mbokk internet yi ñaanal leen kenn ci ne fa mu nekk lay bëggam ak yéenam ak mébétam itam jox leen dig daje incha allahu taala ci beneen numéro ak faj sa jàngoro ci biir senflash point com jafo salam